docteur Alima Gueye nekk ci dëkk bi nekk ci dëkk bi jëriñ dëkk bi a li neex na xoolal nu ko xale yi teetoo a macha allah hey jong lay leen la naaw le médecin plus intelligent du monde il Alima Gueye waa xale yi jóg nañ mairie jóg yi jóg nañ daa Eh, eh. waa li neex na waay laay leen na laaw et le public c'est eh, là aussi qui est là comme le Alima Gaye l'homme l'infatigable de l'histoire leen di nuyu ya. di leen ziar am ngeen di remer di leen remercier te di jégalu tamit parce que programme bi guddi na asamaan si neexul woon mais malgré tout ñëpp dañoo ñëw toog xaar lu leen si masaw di nuyu suñu papa yi fi ñëwoon principalement monsieur le maire Boucar Diouf mu nekk koo xam ne newul suñu maire kese dafa nekkoon suñu papa nekk suñu référence Nous, nuyu aussi suñu yaay ñi nga xam ne ñoo di wax ne man dama jàpp ne dama am famille yu bëri Joal nous mooy sama famille bu parce que les lu ma nekk fekk ma côté santé bi côté professionnel côté sport bi côté politique bi donc Joal aw nga fay bi ñu organisé aussi à mon nom C'est parce que dina tax li ma nekkee bu fekkee ne mën naa ko yokk incha allah dinaa ko def mais gën naa ne du ma ci dellu gannaaw benn yoon. mukk li mooy maa famille biologique mooy sama yaay sama famille sama jabaat sama doom di profité aussi di ñaanal sama papa parce que li yëpp aussi moom la ne newoon na koo xam ne à chaque dañu doon soutenir dama doon wax ne ma. yenn saa yi ma doon dem examen ñëw affaire yi dëgër ma ñëw di kaas mu ne ma dinaa la soutenir tant que tu me donneras les raisons d'y croire mu nekk loo xam ne heure bu ma ko waxaan dama naan dem examen ñëw première session affaire yi kii bu ma ko waxee day mel ne dañ may revigorer peut-être fekkee wu fii aussi mais ñu ngi koy ñaanal fële mu nekk yàlla na ko fa yàlla defal tawfeex di excuser wu aussi sama famille parce que aussi contrainte professionnelle yi nekk ci clinique bëggee des fois nga wàcc dix huit heures dix huit heures dix guddi des nga nekk si terrain bi contrainte politique mu nekk par exemple loo xam ne da ngay nekk un parent wala un boo xam ne dafa absentéiste maa leen si masaw parce que des fois bu may dugg ci kër gi day fekk mère bi tëdd damay fekk sama xale tëdd maa leen si masawu di leen jaajëfal di wax ne aussi dama am beneen famille mooy la famille professionnelle mooy ñëpp ñi nga xam ne ñoo nekk acteur de la santé biir Joal Fadiouth ñu nekk ñoo xam ne ñun bokk na ci ñi mujjee ñëw ci santé bi mais du ñu ñëw dañ ñoo yaatal tey jàpp naa ne plateau médical Petite Côte lépp lu mu doon loxo district à travers docteur Pape Salif Ndoye ak docteur Yaat seen loxo jógu si loolu day wane ne moom ak seen équipe bi yëpp maîtresse sage-femme Khady Khady caw mu nekk sama jigéen nekk sama sœur Modou Sarr sama frère eh, infirmier ak ak euh, sage-femme yi nekk si poste de santé yi ñëpp dañuy collaborer mu wan la ne ñoom gisuñu ma comme benn rival gisuñu ma comme benn wut mais li ñu def au centre mooy santé bi nga xam ne moom la population bi soxla te loolu aussi maa leen ci jaajëfal di leen ci di leen ci dox seen wàccuwaay beneen famille bi ma am mooy la famille politique ma du ma nee famille politique ma ay Pastef APR wala leneen dama jàpp ne ñun ñi nga xam ne ne ne acteur politique dañoo nekk une famille famille nag dina am koo xam ne nii la gisee nee la gisee ak na la gisee moo tax ma xamlaat ne politique dañ ko war a def ñun li nga xam ne ñooy une jeune génération bi de façon différente politique bu mu nekkati xaste saaga waxate lu ñaaw nañ fexe lépp doo xam ne dañ koy wax ne ci sóoraale suñu famille parce que man jàpp naa ne sama famille defe naa man kese maa ci tey nit ki mën na la def une attaque frontale acteur politique mais des fois xamul ne man en tant que acteur politique loolu du ma métti wala ma gis un autre acteur politique ma wax ko lu métti moom en tant que acteur politique du

mooy maanaam nit ki fépp foo ne da war a def sa kéemtalaay kàttan pour mën a jëmale sa dëkk mën a jëmale sa gox kanam te loolu warul nekk loo xam ne dafa yegg ci wax man dafa jàpp ne dafa nekk loo xam ne lu war a dundeel lu ñu war a dundal lu ñu war a dundee la mooy tey lépp loo xam ne war nañ ko mën a def pour suqali suñu kanam suñu gox lépp lu ñu war a mën a def pour suqali suñu réew war nañ ko mën a def lu muy commencé c'est par des actions citoyennes maanaam xam ne suñu dëkk suñu réew suñu ko kenn kenn du ko defar du nguur du kenn balaa kenn di fay di fi yegg ñun ñi nga xam ne ñoo fi dëkk ñu ñoo si war a njëkk a taxaw bu ma jógee si loolu damay wax ak jeunesse Joal Fadiouth bi nga xam ne man ci laa bokk jeunesse Joal Fadiouth yëpp particulièrement ñi nga xam ne aussi mooy ñi nga xam ne ñoo ma gën a jege mooy jeunesse su sàcc bi di remercier sama ASC nga xam ne ñoo nekk si si koñ bi mooy ASC Château d'Eau ASC Yaakaar ASC Océan ASC Cadre di remercier aussi toutes les ASC de Joal di leen wax ne ñu jeunesse Joal dañoo war a gën a yeewu du ma ne yeewu parce que dañuy nelaw mais jeunesse Joal gis nañ ne si ñenn si jeunesse li leen gën a mën a yëngal leen gën a mën a wane seen xalaat li leen gën a mën a wane seen mécontentement wala leneen nawetaan wala seetaan di lam wala di commentaire si yenn yi suñu énergie positive boobu dañ ko war a jël def ko ci li nga xam ne moom mooy développé suñu dëkk ñu xam ne dëkk bi kenn du ko defar sans la jeunesse. ci jeunesse bi nañ xam ne ce Joal ne sera que ce qu'on voudrait en faire liñ bëgg mu doon Joal ñun jeunesse bi loolu lay doon buñ bëggee ne Joal dafa bëgg nekk dëkk bi nga ne mooy gën a noos la wala pour nag leneen dëkk boobu lay doon mais buñ gëmee ne suñ dëkk Joal Fadiouth dañ ko war defar dañoo war a tax dañoo war a fexe ba mu nekk dëkk boo xam ne dafa méngoo ak dëkk deux mille vingt quatre parce loolu aussi ñun suñu nekk parce que des fois da ñun ñi nga xam ne dañuy def ak ne action politique chaque jour dañ lay wax. grand est-ce doo bàyyi politique bi nga def continuer gën a jox sa liggéey population bi lii population bi laa mais tey dañoo jàpp ne am na loo xam ne mi ngi daal Joal Fadiouth bu fekkoon ne am na jeunesse boo xam ne en dix ans vingt ans ci gannaaw xeexoon na ko mën na am tey loolu du daal Joal Fadiouth ñu nag xam ne instant bi nii lu ñu xeexul mën na am ñun du metti si ñun de mais suñu ay doom lay met bu ma waxee tamit ci jeunesse bi damay ci. suñu dëkk bi mooy Joal Fadiouth di wax ne am nañ bébét te incha allah bu ko yàlla bu ñu yàlla mayee bakkan dinañ bokk si joŋante yi nga xam ne moom moo ñuy bëgg a bu ñu mën a nekk maire commune Joal Fadiouth. di wax ne Joal dafa nekk commune boo xam ne comme ni ma koy tàmm di waxee am nañ lépp ba pare ñàkk lépp Joal mooy dëkk bi nga xam ne tey boo amee sa kan mu ñëw seet si la sax amu leen fu ngeen dem taxaw pour photo wu donc ça veut dire infrastructure amu fi tey jeunesse bi sport amul fu ñu épanouir tey ñun ñu am quai de pêche am Tamba am Xelkom mu nekk ay sites yoo xam ne lépp xaalis lay dugal mais xaalis boobu mënuñ koo gis mu mënuñ koo matérialiser ci communauté Joal Fadiouth tey nga am un quai de mu nekk loo xam ne chaque jour luuma la chaque jour luuma te pourtant warul am impact ci développement dëkk bi Joal da ngay def coche boo xam ne trente mètres ak géej bi muy taa ñu jàpp ne Joal Fadiouth a besoin de ses ñun ñi nga xam ne ñooy jeunesse ñun ñi nga xam ne ñoo jàpp ne ñun na fi yàlla teg te ñun aussi ñi nga xam ne ñoo fi incha allah ñoo fi nar a dund ay ati at ak suñuy jaboot amuñu feneen fu dul Joal Fadiouth nañ fexe ñu takk suñu loxo fexe ñëw gën a jëmale suñu dëkk réew dëkk kanam. di wax ne tey bu dee politique ñëpp dañuy jàpp ne politique intérêt politique intérêt politique intere parti bi ñu nekk doo de soi la wax tey wàcc toog sa kër naan ataaya wala dem toog si garab glace dem kii moo gën a yomb foofu mais nit ñi bu ñëwee di investir ci terrain politique dama jàpp ne natura sacerdoce la mais dañ koy nangu di ñaan population Joal Fadiouth du ànd parce que li ñu gëm li ñu gëm te li ñu bëgg mooy Joal Fadiouth mënul am un quai de pêche jour mil mille cinq cent wala deux mille personnes di fa dugg tey boo jëloon ku nekk joxe dërëm wala benn cinquante franc wala benn cent franc benn ticket forfaitaire ñu organiser suñu koor loolu da ci dugal ay millions yi millions te loolu tey biñ ko jëloon impacté ko si dëkk dugal ko si dëkk bi waroon nañoo mën a au moins chaque ñu ne mbedd bi nañ ko pare mbedd bi nañ ko def nii mbedd nañ ko def nii man jàpp ne vision la te vision li nga xam ne moo koy matérialiser mooy bëgg-bëgg bëgg-bëgg bi nag lu koy gën a ñu gëm koo xam ne dañ ko réaliser en tout cas daal population Joal Fadiouth seen doom seen rak seen frère mooy fexe di leen xamal un autre Joal Fadiouth est possible war nañu mën a am beneen Joal Fadiouth boo xam ne dafa méngoo ak li nga xam ne moom mooy